bésub jàmm ak lang la retrouvaille ak bi la bii bésu fekk ñëpp di waaj góor a jigéen ma ni pare leen bésub sañ sek mbégte daje fa ku la fa fa fekk fexeel ba duñ la ko nettalee ñi ngi kon euh, waat di jéggalu ci coupure bi nga xam ne am na léegi euh, maa ngi leen koy wax ñi ngi dalal monsieur le ministre euh, Moussa Baldé ñu dénk ko lépp luy agriculture ak équipement rural maa ngi lay nuyuwaat monsieur le ministre. jërëjëf maa ngi lay nuyu Binta Diallo di nuyu mboolemi téléspectateur yu TFM. waa may la doon laaj ndax ak campagne agricole bi door na am déet pour les téléspectateurs. waaw loolu laa wax ma ne xam nga ñun hmm. suñu campagne agricole. Hmm. maanaam mu ngi door mois de mars. mois de mars. dañu dem conseil des ministres ma présenté programme campagne agricole 2022 2023. Mhm. ñu valider budget bi. budget bi ñu ngi koy valider 70 milliards. Mhm. parce que président bi mu gisee ne yokkute bi am ci intrant yi. Mhm. dafa jël 10 milliards tegaat ko suñu budget bi ñu amoon daaw. mu nekkoon 60 milliards mu nekk 70 milliards. mën nañu dem leen defal seen programme euh, campagne. bu ñu demee loolu à partir du mois d' avril. la ñu commencé def ay actes réglementaires maanaam ay circulaires yu ñuy yenn gouverneurs yi. Mhm. pour xamal d'ailleurs nañu defar commission yi parce que li may faral di wax mooy commission yi. Mhm. dafa am lu ñu tëralee ni ñu leen tëralee. commission bi nekk ci benn commune mhm. maanaam euh, sous-préfet arrondissement bi mooy jiitu commission de distribution des semences. ki ci topp mooy maire commune ba. donc bu ñu defandee ay commission yëpp. ñu tàmbalee distribution des intrants. loolu nag nu koy defee mooy dafa am ay opérateurs yi ñuy agréé parce que ni may faral di wax. tax ñun du ñu jënd jiw béyuñu jiw jënduñu ko dafa am ñu ñu tuddee opérateur ay multiplicateur de semence par exemple boo gisee semence certifiée mm-hmm. suñu techniciens yi bu nawet bi jotee nii dañuy topp ay multiplicateur de semence. Mhm. ñu leen di topp di saytu seen tool yi ba valider. Mhm. maanaam homologué leen ni ñii li ñu béy nii. war nañ mën a nekk semence certifiée. Mhm. wala ñii du ñu mënul nekk semence certifiée. loolu bu bu ñu ko xayma Sénégal en tout cas amoon nañu à peu près cinquante mille tonnes de semence certifiée. yooy yëpp ñu notifié ko pour ñu yóbbu ko ci gox goxaat yi. ak li ci des nag maanaam comme que ñun bëgg nañ joxe ay soixante quinze mille tonnes. waaw vingt cinq mille yi. lañ koy jël maanaam semence yoo xam ne certifié wuñ ko mais gëm nañ ni war na mën a baax dañ ko sélectionné bu war na mën a baax pour nekk jiw mais mais justement monsieur ne mhm. euh, service cinquante mille tonnes la ñu mhm. ñun nag bëgg nañu euh, jox lu ëpp loolu mhm. loolu moo tax ñu yokk mille tonnes yoo xam ne c'est vrai c'est des semences écrémées mais en tout cas ñi ko saytu gëm nañ ni loolu war nañ ko mën a joxaat béykat yi mais prix écrémé bien sûr bokkul ak prix semence certifiée. léegi euh, commencé nañu la distribution. fi mu toll ah, distribution mu ngi commencé. Mhm. Euh, à partir de. Euh, du du du du 15 mai. Mm. la la ñu joxoon ku nekk. Mm-hmm. sa planning. Mm-hmm. ñu ne la par exemple opérateur diw da ngay yóbbu sa sa sa jiw. Mm-hmm. commune Thiamène wala commune Dabali. Euh, loolu bu ñu ko defee euh, processus bi commencé. heure bi mun naa wax ne ci mille tonnes yu ñu bëgg a joxe. maanaam cinq cinquante six mille dem nañu. donc des nañu à mille près yoo xam ne. war nañ ko joxaat ci commission yi. ci foofu lañ toll ci mbirum jiw bu doon ceeb nag ceeb. moom 12000 tonnes la ñu bëgg a joxe. heure bi joxe nañu 8000 tonnes maanaam euh, presque on a dépassé 70 pour cent. Euh, bu dee euh, maanaam ñebe aussi commencé nañu. mais moom la ñu mujj commencé. donc parce que ñebe moom mun nañ ko joxe fii ba fin juillet. ay pastèque ay ñambi. ñambi aussi joxe nañu presque daanaka lu bëri. muy mbokk muy muy dugub. loolu yëpp vraiment processus bi ci li ma ko gisee mu ngi déroulé wu normalement te gëm li ñu bëgg mooy. fii ba le 30 juin. li ñuy war a seddale ñun jiw yëpp mm. mu jeex parce que xam ngeen ne jiw moom fii ci Sénégal mm. euh, war nañu mën a ji ba 10 juillet mm-hmm. sans difficulté mm-hmm. donc bu ñun bu ñu paree distribution mm. bi mm-hmm. dafa taw ñu ne waaye amuñu jiw mais boo xoolee Sénégal ñu bëri de am nañu réserve personnelle ci semence mais bu tawee mois de mai duñ ko ji parce que Casamance boo fa jiyee sa gerte mois de mai août nga koy récolter boo ko récolter août mais day yàqu parce que mois d'août mooy benn taw Casamance donc jiw dafa am ab mm-hmm. dafa am période gëm nañ ni entre le 15 juin et le 15 juillet mm-hmm. fenêtre bu baax la pour jiw donc heure bi ku ku jot jiw war nga ko mun a ji. kon intrant yëpp yemb na amu leen benn problème si benn intrant. yemb na maanaam terme boobu xëy na dafa xaw kii mais comme li ma la wax euh, gëm suñu processus mu ngi dem normalement jiw bi joxe nañu presque quatre-vingts pour cent war nañu ko mun a jeexal ci app bu ñu joxoon suñu bopp mooy juin parce que ñun dañuy wax opérateurs yi bu ñu leen di jox <laughs> début mai dañuy joxe de délai 31 mais xam nga la lu tax loolu pour mu am droit 31 mai bu dee gis gis naa moo xam ne gëm naa ni du mën a yóbbu jiw dama lay annuler jox ko keneen loolu mais ñun xam nañ ni war nañ mën a joxe jiw bi ba le 30 juin mm-hmm. ensuite ñu continuer joxe engrais ba le 31 juillet. pour engrais li ñu tuddee engrais dugub engrais gerte. maintenant urée war nañ ko mun a defar continuer de joxe ba le ba le ba le 31 août. alors si si euh, lan ngeen tablé ci prévision 2022 2023. Euh, par rapport à la production. à la production xam nga Sénégal. Euh, yàlla dafa def ne 2020. Mm. maanaam dañu am. boobu déjà. am nga président bu mu gisee ne mbas mi ñëw na. mu yokk vingt milliards ci sama budget. yàlla baaxee ñu nawet boo xam ne. depuis mille neuf cent cinquante amuñu ko. ñu am production boo xam ne vraiment macha allah. presque un million sept cent mille tonnes de céréales. Mm-hmm. Sénégal nag ñu ngi soxla peut-être. ay à peu près 4 millions de tonnes. Mhm. donc vraiment ñu amoon production bu baax a baax. 2021 mhm. nawet bi taxu koo baaxee noonu. Mhm. mais am nañu une production boo xam ne. à peu près baisse de 10 pour cent par rapport à 2020. waaw ñu jox ay 1 million 600 mille. donc ñun li ñu bëgg mooy. comme que ren météo encore dafa ne dañu prévoir ne nawet bi dina teel. te <laughs> apparemment teel na. dina bari ndox. te dina dem ba fin octobre. dañu bëgg Sénégal ñu produire céréales boobu bëree bëri. loolu moo tax ñu bëgg a yokk par exemple problème euh, diw euh, mbokk parce que gis ngeen ni mbokk Euh, xam nga bi ñu bi ñu bi ñu commencé récolte mbokk ba léegi ça fait dix mois mbokk bi presque jeex na ci dëkk bi mm-hmm. parce que ren mm-hmm. aviculteurs yi ak ñeneen ñeneen dañ ñëw mm-hmm. soxla mbokk Sénégal avant dañ ko doon importer mais mënutoo importer donc loolu moo tax dañu war a dooleel loolu dañu daje ak euh, lu ñu tuddee interprofession maïs bi nga xam ne man maa présider seen assemblée générale yàggul ñu defar ko ni naa jaayte jigéen bu xarañ moo ko jiite ñu am programme boo xam ne bëgg nañu produire plus de huit cent mille que gëm nañ ni yi nga xam ne ñoom ñooy jënd dugub. Mhm. nee nañu au moins ñoom soxla nañ six cent mhm. donc loolu la ñu bëgg Sénégal ñu am au moins quatre millions de tonnes de céréales. Mhm. parce que vu le contexte mondial. Mhm. ak mbas mi nga xam ne jeexul. Mhm. guerre <laughs> mu ngi tàmbali Europe. Mhm. xamuñu lan mooy xew déwén. ñu mun a vraiment maa ngi ñaax. ni am suuf yëpp ci Sénégal. ñu dem béy ko. ñu béy céréales ñu mun a autosuffisant. mais justement euh, yaa ngi wax que ñu ngi produire euh, céréales yu bari euh, variété yu bari wax nga ko fi mais c'est pas autosuffisant ñu ngi jéegaane ba léegi. ren peut-être duñu am problème parce que déjà la distribution commencé na ça veut continuer on euh, veut problème yi mën na ñëw. waaw xam nga Sénégal. xam nga daaw position yi ngeen daaw heure bi heure hmm. bi amoon nañu problème engrais wax dëgg euh, dëgg na yàlla parce que euh, boobu ICS lu muy produire ci engrais hmm. bariwul. Hmm. par contre goutte la doon ñëw. ba suñu distribution. engrais xawoon na tardé ba nit ñi di ko wax sax man sax ñëw naa fii defe naa di ko expliquer. loolu moo tax ñun daaw. mois d' octobre dañu daje ñu ne ko ñun. à peu près soixante mille tonnes la ñu bëgg a subventionné engrais. nañu d' accord ci prix ñu d' accord léegi dañu bëgg ngeen produire engrais boobu. balaa 31 mais te dégg na xel la ICS. produire na engrais boobu. ñun teg nañ ci bët. te heure bi chaque lundi. DG ICS daf may yónni tableau boo xam ne. opérateur yi ma agréé. est-ce que versé ñaata tonnes lañ jënd. ñaata lañ leen livré ñaata moo des. donc heure bi jënd nañu plus de vingt sept mille tonnes d'engrais. te engrais mu ngi foofu. te ren amul problème par exemple daaw da nga doon yóbbu sa auto ICS. sa camion ngay xaar une semaine. pour ñu jox le produit. ren au moins euh, c'est le contraire ICS. moo leen di ñaax gaaw leen indi seen camion a production engrais bi donc à ce niveau vraiment mais comme ni nga ko waxee ah, ah, bu guerre bi continuer non non bu guerre bi continuer d' abord il y a un problème c' que engrais bi dafa gën a cher tuuti. cher na kay. non cher na mais boo xoolee. Mm. xam nga euh, am na ku ma wax ne wooy engrais gerte bi dafa cher. Mm-hmm. engrais gerte mu ngi passé 7000. Mm-hmm. ñëw 10 000 francs. Mm-hmm. saako bi saako bi mu ngi jógee 7000 ñëw 10 000. mais prix plancher gerte. li ñu fàtte mooy yàggul 150 francs la woon. waaw mais léegi 250 francs. donc yokkute gerte prix gerte. moo ëpp fuuf yokkute prix engrais boobu donc aussi loolu. war nañ ko Afrique d'ailleurs loolu defalu ko pour Sénégal parce que xamoon nañ ñun ren mun du ñu am problème engrais. Mhm. loolu mais dem na en tant que président de l'Union africaine te ñu ngi koy vraiment féliciter pour loolu dem ba Russie. Mhm. di xeex pour que Afrique ñu am engrais. parce que ñun def nañu réunion yàggul ñun ministre de l'agriculture bu CEDEAO. Mhm. suñu espace CEDEAO manqué na million de tonnes engrais. Euh, le ministère de l' agriculture di Ghana m'appelle régulièrement pour ñu xool. Mhm. est ce que ICS sax mën na leen dimbale. parce que ñoom soxla nañ deux cent mille tonnes engrais amuñu ko. Mhm. donc effectivement il va se poser des problèmes de de des intrants mais ñun comme yàlla def na am nañu déjà ICS. Mhm. war nañu mën a produire ñun. pour tout ce qui est engrais dugub. engrais mbokk. engrais gerte war nañ ko mën a defar fii. ñun lu ñu dul mën a defar mooy urée. te loolu aussi daaw mois de novembre. Mhm. laa jël sama matuwaay. ut ay euh, opérateurs yu yoo xam ne wóolu nañu leen. Mhm. am nañu kattan. Mhm. ñu ne leen importer leen Sénégal. ku nekk vingt mille tonnes urée. loolu importer nañ ko yàlla loolu moo tax ñun tamit pour. contre saison ceeb. bi passé kenn déggul coow urée. Euh, hivernage bi waruñu am coow urée. wante nag bu yàggee. ah mun nañu am problème urée loolu moo tax. président moom li mu wax mooy il faut que. comme Sénégal dafa war a am gaz. Mhm. te gaz moom. Euh, ingrédient bu mag ci production urée la. donc war nañu mën a. ICS euh, wax wax waxtaan ak ICS. pour que même urée. ñu bu ñu nekkee indépendant ci yooyu yëpp. au moins ñu dimbali aussi la oh, sous-région. mais ça veut dire que mun nañu indépendant du ma déggee. waaw mun nañu indépendant d'être euh, jox jox leen plus de moyens peut-être. non c'est-à-dire l'ICS c'est une entreprise privée. oui ñoom xam nañ ne heure bii. waxuma sax ICS mais de façon globale. ñi nga ne ñooy tourner autour de leen dooleel bu ko defee ñu mën a bay euh, li ñu soxla. oui non bu ñuy jéggaani sax dootul dootul bari. quand je parle d'autosuffisance c'est en fertilisant. mais oui. effectivement. mais bu ñu bu dee Sénégal. ñun am nañu suuf. am nañu naaj. macha allah matériel agricole léegi. Euh, euh, waxuma mot na. mais bari na. je pense que ñu ngi commencer di réunir conditions. pour autosuffisance parce que autosuffisance c'est un processus. c'est un processus. mën nañ jël xaalis Sénégal yépp tey ñu def ko ci mbay ñu am 4 millions par exemple euh, grande offensive pour le mandat secrétaire mais mm. déwén <laughs> bu demeewul noonu day indi problème donc mm. il faut un processus te processus bu ñu nekkee ci production agricole Sénégal moom mm-hmm. c'est un processus irréversible chaque mm-hmm. année mm-hmm. dafay yokk chaque année muy yokk gëm nañ ne en tout cas war nañu mën a dans le cadre du PAP 2A mm. dem ba am suñu souveraineté alimentaire bañ ko waxee ba léegi li gën a gaaw euh, enfin euh, on le plus tôt sera le mieux a waxee rôle. te chaque jour bi ñu xëyee. <laughs> nu ñu liggéey huit ba minuit. ci loolu lañ nekk. gëm lañ nag en tout cas boo gisee rythme de production bi ñu am ci Sénégal. war nañu mën a atteindre loolu comme ni ma la waxee ren. ñun suñu mmh. dañuy jéggaane. Mmh. du bari wala bu ñu amul ceeb am nañ dugub. bu ñu amul dugub am nañ mbokk. Mmh. au moins ñu am loolu. gerte bëgg nañu par exemple dem à deux millions de tonnes. amoon nañu jusqu'à million yàggul deux mille dem ba 2 millions mais gerte googu ñu ngi wax monsieur le ministre lan la ñuy jariñ parce que suñ demee dans le marché gis nañu euh, huile yëpp pratiquement dañ ko dañ ko dañ ko importé te ñu ngi am suñu Sonacos bi ñëpp ngi wax lan la Sonacos sax di di ñu jariñ lan la gerte googu di jariñ bu dee ñun ñi nga xamante ni fii lañ koy bayee chinois yi ñëw di ko jënd di ko yóbbuwaat di ko defaraat seen réew di ko jaayaat à quoi sa sert waaw loolu c'est une très bonne question. Mm. c'est-à-dire que xam nga Sonacos. Mm-hmm. <laughs> dafa. bi ñu ñëwee bi président ñëwee. dafa fekk Sonacos dañ ko jaay. waaw déjà moom dafa gis. Euh, importance stratégique bu Sonacos am mhm. mu jëndaat ko mhm. indiwaat ko suñu loxo mhm. mais nag y a un processus pour le moderniser oui. par exemple Sonacos bi chinois chinois yi ñëwee yokk prix yi béykat yi kontaan lool ñoom amuñu gerte en 2020 amuñu woon 2021 mu tane tuuti mais ren Sonacos am nañu 130 000 tonnes d'arachide

bi ñu koy exporter. yéen li ngeen di jël déjà da ngeen ko triturer. demeen bu dee soxla nañu suñu production yëpp ñu denc ko Sénégal di ko triturer. incha allah dinañ ko def. mais justement Sonacos est-ce que yéen jotul ngeen ngeen leen jox doole même su fekkee jëree bu jaree sax ñoom ñu gérer la campagne de commercialisation bu ñu jëlee li leen doy ba nga xam ne dañ ñun dinañ ci mën a gis suñu bopp après euh, ñu ñu exporter. bon xam nga aussi. Ouais. Euh, xam nga y' a deux deux l'idée hmm. président xam nga sama première campagne. mooy 2019 presque dañ jéggaane 80 pour cent gerte yi. Hmm. bon c' était bien pour béykat yi. jaay nañu seen kilo 300 355 hmm. mais peut-être économiquement baaxul pour suñu réew. 2019 ñu indi taxe à l'export c'est-à-dire euh, ñu yokk trente francs boo jëndee chinois bi bu jëndee gerte ci àll bi bu ñëwee port day yokk 30 francs pour mu mun ko yóbbu loolu yëpp pour dimbali suñu usines yi. loolu dikkal na Sénégal 9 milliards a en taxe xaalis boo xam ne ministère de finance moo ko jël. Ah. mais son Sonacos ñu am 60 mille ton en 2021. Mhm. ren bu ñu ñëwee. Mhm. tout est question d' environnement. bu ñu gisee ne Chine foofu. stock seen stock engrais parce que yóbboon nañu en 2021 500 000 tonnes ci suñu gerte rek. ak yeneen ak yeneen stock bi dafa bëri. dafa bëri teelu ñu ñëw. Mhm. loolu moo permettre. par exemple COPEOL jënd nañu gerte ba doy. Euh, nu mu tuddati Sonacos jënd na ba doyal. Mhm. presque huiliers yëpp jënd nañ ba doyal président de la république li mu wax mooy campagne de commercialisation da ngay war a fexe ba mu équilibré. Mhm. équilibré mooy. Mhm. suñu huiliers yi il faut que ñu am. pour ba ñu saturer seen capacité de trituration. ñu am semence parce que bu ñu amatul semence ça veut dire que gerte dee na Sénégal. wante bu desee effectivement ñu jox ren. système boobu marché na. ba déwén on essaiera de faire en sorte que ça. mais monsieur dañu bëgg gisaat ñun les ménagères dañu bëgg gisaat suñu ay dosettes yoo xam ne Sonacos la jógee ay suñu. litres waaw xanaa bu ñu triturer cinq cent mille tonnes yi. waaw cent mille tonnes yi yi leen dese. waaw war nañu Ah, waaw mais en tout cas au moins xanaa pour quelques mois war nañu ko mën a gis. Ah, ah. waaw mais léegi dañuy xaar parce que ñoom am nañu programme relance boo xam ne. Mm-hmm. soumettre nañ ko ministère de l' économie c' war nañ ko mën a liggéey. Mm-hmm. pour que Sonacos effectivement dañ ko war a yeesalaat. Mm-hmm. bu ñu ko yeesalaatee mu gën a moderne. compétitive. mais dites-vous que am na yeneen euh, privé yoo xam ne. ñu ngi fii am nañu euh, manag euh, ay ay diwlin yu baax. deuxième chose amoon defee suñu forum Chine Afrique fii ci Dakar. Euh, président présidé ko. ak euh, naataangoom bu Chine. dafa amoon ay mesures yu Chine jël pour dimbali. la transformation agricole. Mhm. loolu ci li dégg mooy. maanaam Chine dafa doon taxé suñu hmm. huile bu doon dem Chine. Hmm. léegi peut-être taxe boobu dañ koy dindi. Hmm. te yaakaar naa dindi nañ ko. bu ñu ko dindee li ñu bëgg mooy au moins. au lieu que ñu jéggaane suñu gerte. au moins ñoom bu leen neexee. ñu ñëw samp seen huilier huilerie fii. ñu defar diwlin bi fii. di ko jaay une partie fii. xëy na li ci des ñu jéggaane loolu ah, <laughs> euh, am na beneen problème aussi le blé le blé gis nañu ak euh, toujours la guerre on est encore dépendant moo tax président demoon Russie. est-ce que aussi euh, jox euh, benn leçon pour ñu mun a aussi bay blé ci réew mi parce que il paraît que xaw ma ITA ak yooyu yëpp jéemoon nañu def ay expérimentation mm. est-ce que duñu dooleel aussi suñu entreprise yooyu pour ñu mun a bay blé parce que blé bi nee nañu c'est indispensable euh, dans la production du pain oui indispensable non c'est-à-dire que ñun dañu tàmm mm. pain boo xam ne blé lañ ko defaree mm-hmm. man gis naa yàggul au Cameroun ay croissant yu nice mm. lekk ko gaa parce que dama ko gis télé mm-hmm. yu nice yoo xam ne iñaam lañ ko ñambi lañ ko mm-hmm. defaree mm-hmm. donc blé xëy na ñun loolu lañ tam parce que on est sorti de ce truc français yoo xam ne ñoo ñu dugal ci loolu te suñu maam yi man waa Fuladu la ñun de euh, ay tapalapa ngeen xam tapalapa sax mën nañ ko wax blé la mais non ñun fonde lañ doon ndekkee c'est-à-dire que le loolu aussi problème la c'est-à-dire on a une consommation qui est extravertie ay conditions climatiques yu particulières ñun d'abord il faut une maîtrise totale de l'eau oui. et, et, il faut que ça soit climat tempéré xëy na ñun mm. d'après euh, l'ISRA l'ISRA a fait beaucoup de recherches am na huit variétés de blé yu ñu gëm ne war nañu ko mën a béy fii ci suñu dëkk mais est-ce que jox nañ leen des moyens qu'il faut pour ñu disons que le président nous a instruit de commencer à, à, à travailler sur une production on va mm-hmm. essayer un programme pilote mm-hmm. mais li gënoon mm-hmm. mooy ñun waa Sénégal ñun dugub lañu xam ku nekk war a béy dugub fële au Sénégal mbokk lañu xam am dañu war a xoolaat parce que loolu moo ñu différence euh, def différence ak ñun ak suñu mbokk euh, yeneen euh, dëkk yi nga xam ne ñoo ñu wër mhm. parce que ñoom en seen alimentation mhm. c'est tourné essentiellement ci lu ñuy produit mais justement monsieur Louga loolu mooy problème bi nag mais ñun Sénégalais on est de petits parisiens quoi. non c' est parce que habitude alimentaire bi ñu am na. depuis les <laughs> avant les indépendances mais justement li ñuy bay est ce que mu yéen du seen nekkul seen ressort pour ngeen fexe ba sénégalais yi di consommer ñun li ñuy bay fii. parce que gis nga le riz le riz de la vallée déjà ñu bare duñ ko jëfandikoo. waaw loolu. c'est suñu ressort la parce que mm. euh, tout luy war a avancer le dëkk bi yëpp c'est du ressort du gouvernement. Absolument. mais c'est du ressort de tout citoyen. oui c'est de la citoyenneté. Absolument. donc ñun citoyens yi. Mm-hmm. dañu war a mobiliser wu. waxtaan ak population xamal leen ne. Mm-hmm. vraiment un pays. Mm-hmm. Euh, nga bàyyi fii li ngay xam nga comme sama benn maam di ko wax. Mhm. booy jëggaanee lekk. Mhm. da ngay jëggaane waale feebar yi nekk ci lekk boobu. Mhm. donc jëggaane lekk moom. ala kulli aale c'est pas l'idéal. d'abord c'est pas sûr parce que ku lay jaay lekk. bës bu buggee mën la jaaytuma la. kon boobu da ngay dee xiif. absolument alors que ñun am nañu suñu tradition. te te on est dans une zone particulière c'est le Sahel. Euh, nit ñi wax nañ ne par exemple le mille maanaam dugub. mooy céréale bu gën a adapté suñu climat. bu ñu duggaatee fii avec les changements climatiques. ci beneen beneen xeetu culture boo xam ne ñun miinuñu ko. Mhm. changement climatique def ba finalement dootuñu ci mën a dem. loolu aussi ay problème la mhm. donc loolu réflexion la laaj. Mhm. te ñun li ñu gëm mooy xamal sa dëkk. ku nekk sa yàlla defal na la ci sa ci sa environnement. li nga war a mën a béy ci ci dund ci. donc gëm nañ ne. naam defe naa béy dund daal moo gën a wóor léegi. moo gën a wóor moo a wóor. te il faut ñu egg fa nag. il moom nga moom la ñu. war a loolu xam nga. parce que aussi la qualité ça pose problème. monsieur le ministre non non xam nga non moi je suis pas d'accord boo gisee. am na benn dëkk bon du ma ko tudd mais mun nañ ko tudd par exemple. bu ñu mhm. commencé seen tataay. dañu waaye non naayisul et mais foofu la ñu góorgóorlu góorgóorlu ba heure bi. Mhm. dañuy jaay ci àdduna bi yëpp. donc mhm. mais mënuñu jóg rek mu qualité parfait mais nit ñi da di accompagner seen production locale. même bu naayisul ngeen di dem ngeen di dem ba benn jour gars yi dañuy trouver formule yoo xam ne. war nañu mën a def ñu jaay ko fu ne. donc mais bu on véhicule des complexes. Mhm. te vraiment gëm mhm. ñun sénégalais yi war nañu. sa il faut donc une communication forte. autour de ça vraiment ñu sama ministère ministre commerce gis naa ne en tout cas moom mu ngi organiser journée mhm. mois de la consommation journée de la consommation. ñun ñëpp dinañ ci jàpp ci gouvernement bi pour que Sénégal quand xam suñu réalité. xam ne aussi vraiment. Euh, Euh, en matière de sécurité alimentaire. lekk loo xam ne. Mhm. wala boo ko euh, jiwee sa dëkk mu sax. nga toppatoo ko yow sa bopp. Mhm. produire ko mhm. moo gën vraiment ngay dépendre. man loolu laa doon wax samay mbokk yi fuladu. ma ne leen euh, dans le cadre de l'autosuffisance à Anambé. mais ki lay jaay ceeb nekk Vietnam nekk fële gënu la doole ëpp la doole. mais lu tax mu lay jaay ceeb. man mënuma d'accord ne. un producteur du Sénégal. un producteur de l'Asie mu lay jaay ceeb. en tout cas boo nekkee ci différence ak ah. ak rivières yi ñu am ak lu ne war nga mun a xam ne yow da waroo d'accord bu dee béykat nga kuy ne ku nekk par exemple Asie mu lay jaay ceeb loolu c'est pas possible donc loolu vraiment c'est c'est mobilisation nationale qu'on doit avoir sur mm. doo fi jógee parce que mun naa wax ni euh, wala sax parti yaa ngi bokk benn bokk yaakaar responsable politique nga fële ca Kolda di moom laa bëggoon a <laughs> wax mm. euh, gis nga lu fi xew temps yi ci coow ci wàllu politique ana benn bennoo jàppal bennoo jàppal yeewi askan wi mm. euh, ba suba Sénégal gi yëpp fu ne ñëpp ñëpp ñëpp a tiit mm-hmm. ñuy naan suba est-ce que nit ñi sax dinañ liggéey mm-hmm. parce que yeewi askan wi euh, nee nañu li leen dal yéen leen ko teg ba dañ koy defanteeg yéen ba mu saf sur le mm-hmm. terrain. suba la ñu bëgg a marche le préfet l'a interdit mais nee nañu ils seront dans dans dans la rue alors sénégal yëpp tiit fu mu toll nii si diggante ñaari ñaari coalition yooyu. indi coow ci réew mi. waaw mais xam nga Séné euh, dëkk nag. boo demee ba ñu am ñoo xam ne ñoom dañu bëgg a xotti constitution bi. Hmm. vraiment loolu c'est dangereux. Hmm. je pense que les acteurs politiques. Hmm. dafa am beneen apparemment. une race d'acteurs politiques yu ñëw ci système bi. yoo xam ne en tout cas ñun daawuñu ko gis Sénégal. maanaam qui appelle à la violence. Mm-hmm. man li may xalaat damay <laughs> damay tiit. Mm-hmm. damay gis yoo xam ne euh, un leader politique. Mm-hmm. mi nga xam ne derrière lui. y a d'anciens ministres directeurs d'État ñuy naan nañu dem attaquer euh, dëkk kër dëkkukaayu ministère yi loolu vraiment. loolu beneen mbir la. je ne parle même pas des insanités yoo xam ne. ñu ngi ko yekk ci sur la première institution de notre pays. li ma bëgg a wax mooy foofu mooy le jour que en tout cas. constitution le, le conseil constitutionnel li muy wax. Mhm. dañ ko bëgg a xotti. Mhm. ça veut dire que c' la fin de l' de droit. Mhm. et après c' la guerre civile. donc loolu yàlla nañ ci yàlla musal. parce que gis ne nañu loolu du droit. Euh, non il faut politique la yéen a nekk derrière. Euh, euh, madame Diallo. je pense ñu gis. ay leader politique ñu ne. ñun dañu juum ci suñu liste. loolu dëgg nañ ko wala dëgg ñu. nga ne yow da juum. mais boo juumee ci sa liste. Mhm. nga yóbbu ko conseil constitutionnel mu ne la da nga juum. Mhm. sa liste bi du dem. Mhm. mais après nga ne yow. conseil constitutionnel li mu wax du dëgg. te kenn du fi def élection. alors que yow yaa taxaw dale ñëpp di la seetaan nga ne ah ñun de suñu liste dañoo juum. non mais loolu man en tout cas daf may jaaxal. Ah, nee nañu de yéen a nekk si ginnaaw. bu ngeen bëggoon non bëggoon est-ce que bu ñuy wax noonu bu ñuy defar seen liste. Mm-hmm. Mm-hmm. nekkuñu fa. waaw bu ñu juumee mm-hmm. nekkuñu fa. bu ñu ñëwee wax juum nañu. mais ñun nekkuñu fa. xam nga noonu aussi sénégalais yi je pense que xam nañu dëgg bi fu mu féete. kon d'accord ci élection yi ñu ko pour jàmm am. comme ñoom ni ñi ko reporter élection pour jàmm am. est-ce que loolu du du gën a yokk fitna. parce que kon bu boobaa Sénégal fii. ku lu conseil constitutionnel wax. Mm. mun naa am ku ko ku wax ne. Mm. moom d' accord ci te mm. élection du am. parce que quand même am na parti yu bëri dañu leen recalé ci parrainage. mais waxuñu dara. Mm-hmm. parti yu bëri mm-hmm. dañu leen recalé ci parrainage waxuñu dara. Mm-hmm. donc bu ñu demee ba conseil constitutionnel bu ñu waxee ñu ne ah. pour jàmm am nañu arrêté dem euh, pour reculer élection yi. kon nañu xam ne dootuñu defati élection Sénégal. voilà ñu ngi remercier monsieur le ministre. Moussa Balde. maa ngi leen di gërëm di leen sant bi j'espère que béykat yi en tout cas. ñu ngi may dégg mm-hmm. kontaan nañ ci affaire comprendre nañu système yi nu ñu ko expliqué fii. Mm-hmm. maa ngi leen di ñaan encore. Mm-hmm. que Sénégal ñoom la yaakaar. parce que gis nañ ne àddina bi ku nekk da war a yaakaar ci li nga euh, ci sa mbéy. pour nga mun en tout cas passer crise bi. donc béykat Sénégal la ñu yaakaar. en tout cas ñun dinañu def suñu kem kattan. pour que ñu nekk à l'aise mun a produire. pour mun a dem cité yi euh, la belle Fatidiane dina fi teew pour le journal